boo bëggee jot bépp vidéo bu jóge sur ci chaîne chaîne Nour Darayni TV da ngay bës fii ñu bind s'abonner boo noppee nga daal di cloche bi. Nour Darayni TV le reflet des valeurs et culture du mouridisme. nag yalla dogal na bop bi moy señ Sidi ndax it wajuram lañ koy defal muy Cheikh ablat manam mo tax ñu jëk ca mom ñaan ko ndigal bo mu maynuko bu waxon ni it manam amu leen ci ndigal fofu la ñuy wëlbeuti ko kayit yak yep nu dindiko ndax ndigal rek la ñuy wéyee yow it yalla dogal na maam fa nga nekkoon ak ñun bu ñu samp daayira bi ci manam say kaddu yu rafet japp len ko te yalla tax. bu ko defee ku yàlla tax muy def dina leen fekk si loolu it ku ne xam na ne yàlla dogal na egsi na ndax lii ma jël di wax ak moom mën naa la ne amu fa woon gone yu mel ni it xëj na booba amul kon waane nag ñu jàng ni ñoom amee ñoom ñu xam-xam bokkal seen bopp ci maanaam jamono mën a xam laam li jamono laaj booba amu ca woon kon nag yàlla dimbali leen ba am na kon it ñu ngi sàkku ñu ñaanal leen noonu laa ko waxee sëriñ bi ñu ñaanal leen ba fi ñu jëm ñu yegg fa te dara du leen fakk kon it maanaam ñu ngi lay yëgal bés bi di la xamal ne bés boobu la te it di ci sàkku say ñaan ci kàttanu ko sa waajur Cheikh Mamadou Fadilu waaw maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñu sant di leen gërëm am leen daan nuyoo rek ah di ñaan ci doole Serigne Touba ni ñu ko tàmbalee woon yàlla nañu ko Serigne Touba yeggaleel ñu tàmbali ko ci bisimilah rahmaani rahiim yeggale ko ci alhamdulilah dama daan ñaan rek. ñun daal liggéeyal sëñ tubaa doom lañ fi lañ bëgg te moom lañ bëgg a nekkee ba waxtu wu ne kon nag ñu ñaan lii nga xam ne tàmbaliwaat nañ ko ren jii yal nañ ko def na romb rek yal nañu sëriñ tubaa yeggale lépp waaw sëriñ Touba ak waa këram yépp yal nañu ci yal nañu ci jàppale ñaanal ñu ci bañ mën a yeggale lépp ci barke sëñ Fallou jërëjëf sëñ Laat moom mooy sëñ Fallou kon dégg ngeen maam ni sëriñ soxna si wax ne na ku ne xam na ne sëñ Ablaat moom mooy sëñ Fallou mooy sëñ Fallou daanaam wax lu yomb la mu ne wax ci nag it lu yomb la may defee kasu rajab bi ndax nii muy defee kasu gi noonu di ko def ci nee na noonu laa bëgg Seex Abdu Lahat di ko def ci moom di def ci doomi Sëñ Tuubaa yëpp moo tax ku def mu ne ku def ci bisub Seex Abdu Lahat bi xolam day sedd lool nee na su sañoon li commencé ci Touba gi ak réew yëpp. li tàmm tàmbale ci Touba yi ak réew yëpp. nañ ko nañ ko fas yéene jàppale bi sam bi. nee na nañ bi. Abdoulaye jàppale sa bopp. jàpp ku te ku jàppale Sëriñ Abdoulaye sa bopp nga jàppale. kon yal na Sëriñ Abdoulaye gën ñu cee jàppale. kon yal na Sëriñ a jàppale nag ci bis bi ak Sëriñ Fallilu. ak Sëriñ Fallilu ak ñoom ñëpp ba lépp sotti. ba lé ba ñoom ñu jàpp ci ba lépp sotti. ci barke Sëriñ Touba barkeb Sëriñ Touba. kon noonu ko soxna si waxee rek kenn ku ne xam na ne ma noo ngi yàgg faral di dégg ñu ne Sëriñ Abdoulaye mës naa ànd ak Sëriñ Fallu ñu jëm ci jumaa ji kaal ak sëriñ bi wadd sëñ Ablaat fab ko wékkal ko ci mbag mi mu ne ko waaw góor pour tegge koo fii teggu fii rek moom ñooñu moom yàgg na noo dégg nettali bi euh, te it ku ne xam na ne keroog bi sëñ Fàllu wàccee ñu bari dañu sëñ Ablaat doon na lijjante kayit ngir génn réew mi ndax la taxoon mooy ne na li sëñ Fàllu yoroon xalaatu ko yor attanu ko mukk seddu waaw xalaatu ko yor mais booba nag sëñ Ablaat xamut kon ne maanaam sëriñ Tubaa saa bu la fi tegee moo yor sa lépp ndax keroog ba mu toogee xalifa la ne maanaam ku toogul xalifa ak loo man di sant xamoo sañ Tuubaa waaye saa boo toogee xalifa balaa ngaa am ñeenti waxtu keroog ngay xam ne xam sëñ Tuubaa ndax ne nañu ba mu toogee bu ci guddi mu dox ba ca barom baraag ba maanaam ñaan fa ba mu delsee bu ci buntu buntub buntub këram dañu ne malaayka yi mu xarab yi ne cëpp na ko di yaay sëñ Tuubaa tey te na maam ba sëñ Fàllu nelaw sëñ laat yorut ñaar fukki dërëm kayit kayit ñaar fukki dërëm kayit la yor nee na ba nga xamante ne yàlla doon na jant maam asamaan set na ba jant bi dox lu war a mat juróomi gopp nee na mu ngeeg juróom-ñaari million nee na keroog lay xaw su ko xam sëñ Tuubaa waaw kon maanaam noonu mu ko waxee rek alhamdulilah kon maanaam sëñ Fallou mooy sëñ laat sëñ laat mooy sëñ Fallou kon nag alhamdulilah wasalaamaaleykum wa rahmatullah soxna si yàlla na fi yàgg te wér ci barkeb sëñ Fallou kon nga ñaanal nu nu daal di yewe ko. bo bëggee jot bép vidéo bu jóge fi ci chaîne chaîne Nour Darayni TV da ngay bës fii ñu bind s'abonner boo noppee nga daldi di cloche bi. Nour Darayni TV le reflet des valeurs et culture du mouridisme.